warna and ci dossier biñu wara yobbu conseil euh, constitutionnel pour valider candidature bi nga xam déclaré naa la ci top moy parrainage lool aussi mottali nañ ko meun nañ wax né fi ak suba suñu dossier dina mëna dem conseil constitutionnel euh, ñu yobbu ko ci jamm li nga xamné donc meun naa wax moy caution biñu indi tay ji man ma waxone wa Sénégal ne dinaa ko tek ci table pour cautionner euh, Sénégal wonné Sénégal ñor nañu Sénégal soxal nañu loolu nak def na né doomu Sénégal yépp la war tay ji man indi na caution bi

amul kenn koo xam ne tey jii mën na xëcc ne moom moom Sénégal war a imposer Sénégal yi loo xam ne euh, ci coobare boppam la wala ci coobare waa këram wala ci coobare donc euh, askanam parce que loolu dañ koy tere Sénégal yëpp benn lañu ñun ñëpp nañu ànd booloo nekk benn respecté ku nekk ku nekk respecté démocratie koo xam ne tànn nañ ko nga jàll wala nekk candidat nga sàmmonteeg sàttu réew mi ba ñu dem ci jàmm élection ci jàmm donc kii gagné gagné yàlla xam na ko kii gagné gagné réew mi continuer nekk ci jàmm donc ñi ngi woo nguur gi pour mu mañ a nekk almet bi nga xam ne mooy cos processus électoral bi na sàmmoon sàmmoonteeg li nga xam ne moom la yoon tëral comme sa jàmm ne ñooy euh, loolu la ñuy woote tey jii ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen euh, sant ci loolu di wax ne tey jii euh, jour bu am solo la ci ñun ndaxte Sénégal moo tax ñu jóg Sénégal moo tax tey jii ñu taxaw fii li ñuy wax ci Sénégal mooy war nañoo bàyyi xel ci Sénégal fu mu toll ndaxte Sénégal ndóol am na ndóol goo xam ne mi ngi sonal nit ñi te loolu war nañ ko saafara li nga xam ne mooy politique bu président Macky Sall bi mu fi toogee 2012 ba léegi mën nañu wax ne plan Sénégal émergent bi nga xam ne moom la promettoon Sénégalais pour mën a euh, yombalal Sénégalais yi seen dundin loolu lu ci bëri nax na nasax na wala gisuñu ko moo tax tey jii ñu proposé beneen plan beneen système boo xam ne dina mën a fekk ci ci Sénégalais yi ci la ñu nekk ndaxte fi mu toll Macky Sall daanaka FMI mooy yore réew mi FMI mooy gérer réew mi ndax FMI moo ko yoreel moo ko ameel xaalis boo xam ne moo ko lebal xaalis boo xam ne moom la yore réew mi donc condition yi nga xam ne moom la yore réew mi tey jii FMI moom moo ko sas te ñun d'accord ñu ci li nga xam ne FMI sas na ko président Macky Sall li ñu d'accord mooy li FMI di laaj xaalisam ñu fay ko ci état bi li muy fonctionner état bi li muy jar euh, jar dafa bëri dafa cher ci ndodd Sénégalais yi donc bo fekkee ne bëgg Sénégal woyofal Sénégalais sen dundil da ngay jël li nga xamné la FMI di laaj nga gal ko ci fonctionner ci caisse noire yi euh, donc agence yi ci ko économiser normalement donc subvention yi nga ko pour sénégalais bi gis normalement pour que courant bi cher ceeb bi cher ndox mi yi cher pour que sénégalais yi mëna gis Sénégal ndaxte Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp war a ànd booloo pour que Sénégal ñëpp mën gis seen bopp ci biir Sénégal te defe naa yoon woowu bu ñu ko jaaree Sénégal dina neex a dund dina neex a toog loolu en tout moom lay woote ñu am plan boo xam ne maa ngi ko tuddee plan résilient boo xam ne Sénégalais dinañ génn ci ndóol xale yi nga xam ne ñu ngi dem tey jii di mbëkk gaal yi di wuti fu ñu suturloo fu ñu liggéeyee ñu toog ci réew mi mën a am yaakaar ci réew mi mën a yore réew mi ëllëg si loolu moo tax tey jii ñu ñëw cautionné suñu bopp cautionné Sénégal pour jëm ci élection présidentielle bi ndax Sénégal kenn moomu ko ñun ñoo ko bokk li ñuy ñaan mooy Sénégal nekk ci jàmm Sénégal wéy nekk ci jàmm ñu fal élection euh, présidentielle euh, président ci jàmm ak salaam Sénégal continuer nekk ci jàmm loolu la ñu woote yàlla nañu ko yàlla may ci jàmm ñu dem ci élection yi ci jàmm def ko ci jàmm génn ci jàmm ki war a gagné yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla def muy li nga xam ne moo gën ci Sénégal moo njëriñu Sénégal maa ngi leen di gërëm leen sax